di dolli suñuy cant suñuy diggante ak sëriñ bi moom mii suñu lépp tey ak ëllëg ci biir ak ci biti ñu ngi sant bu baax sëriñ Abo Mohamed ci taxawaay bu rafet bii mu taxawee rafet nañ ko lool dara des àndaloon ñëpp xam nañu seen taxawaay bu baax xam nañu seen yéene ak seen pastéef bu rëy gis nañ jëf ji tam bu baax a baax sëñ bi nee na ñu leen sant bu baax te di leen gërëm gannaaw loolu itam ñu ngi sant ñi mu bokkal liggéey bi ñëpp. mais ñaari xaaj rekk muy mag ñi ak ndaw ñi mag ñi xam nañ seen pastéef bu wér ak seen taxawaay bu dëgër ak seen yitte ju mat xam nañ ko ci ñoom kon loolu lañ leen di sant bu baax a baax di leen sant te di ndaw ñi gis nañ am nañ tawféex ju mel na ni ñoom ñëpp sëriñ bi mooy seen yitte te loolu mën na la defaral seen lépp seen tay ak ëllëg seen biir ak biti kon nag noonu rekk la demee kenn ku nekk nee di soññ boppam kenn ku nekk na soññ boppam ci sëriñ bi ci liggéeyal ko ci dund ko ci jéem koy xam waxtu wu ne ndax diggam ba boromam doyloo na ko sëkk ci suñ lépp moom boolewul ak dara boromam ak yonent bi bi mu ko jox ndigal diggante boobu rek ci la nekk boolewu ko dara kon nag alhamdulillahi rabbil alamin nañ sant bu baax te doyloo ko sëkk suñu diggante ak suñu borom wéetal suñu borom doyloo sëriñ bi suñu diggante ak moom nee doy na ko sëkk nee na nekk foofu rek te sax fa te bu seen xel yar yar ci dara suñu lépp lañ ko jëmale sëriñ bi gën a góorgóorlu a baax a baax ne ni ma ko waxee rek suñu yitte jëpp nañ ko jëmale ci sëñ bi fas sax dàkk ci jaamu yàlla nim ñu ko bëggale sax dàkk ci liggéeyal ko te yàlla tax nañ sax dàkk foofu rek ba ca kanam incha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nee lépp lépp gën naa dolli nee lépp gën naa rafet lépp gën naa masu suñu xol seet na kuy kuy suñu xel na la jeex suñu njort gën naa rafet kon am na yaqin wa am rabbuka xataa yakkal yaqin loolu rek la demee ñu nekk foofu rek sax fa duñ fa gis kenn ku dul sëriñ bi jërë ngeen jëf ñu tàllal sëriñ bi ñaan Mbàkke